itam bu baax ñi nga xamante ni ñu ñuy bàyyi xel ci 95 point 6 muy Almouridiyyah FM di jiital ci suñuy kaddu kaddu ziar bi nekk ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir xalifa général bi mooy di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak yëpp ba mboolem li mu yéene yéene ci liggéeyu Serigne Touba mu matale ko te ñu ànd ko ak moom di ziare mboolem ñi nga xamante ni nag ñu bàyyi xel. fukki fan ak benn ci weeru septembre atum 2022 fàttali julli géej gi di ci fàttaliku bis bu dégtu bu takku bu am solo di bis bi nga xam ni ci la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu sol julli woon ci yoonu géej gi xam ngeen ni ren soxna soodu xumma le Cheikh Mahamadou Muntaxaa jël liggéey boobu teg ko ci loxoom boole ko itam ak sëriñ Yuusu Jóob jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ngir mu taxawu ko jàppale ko ci fan yëpp euh, sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadir na mu ko baaxoo defee at mu nekk itam moo dikk jiite julli gi sëriñ Cheikh Bassirou Mbacke ñu yor kàddu sëriñ bi teewoon fa ak euh, ñu takku ci njabootu sëriñ Touba ak bokki taalibe bi bis boobu nag euh, jàllami ci jàmm ñu ko soxna si sàkko woon ñaane woon ko itam suñu boroom ci barkeb sëriñ Touba mu defal ko woon looloo waral nag tey jii mu dellu siwaat di am ay yaatu yoo la bëgg a jottali mboolem bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ak muy autorité yi dugal nañ ci seen loxo ci lu jege ak lu sori ba ni ko ko sëriñ bi digalee woon mu amalee bis bi noonu loolu war nag mu yebal te ji sëriñ Abdou Samb tey ji fii ci plateau al ñu war a ànd ak moom ngir mu mën a jottali cant yooyu kem lim ci mën donte sax du ñàkk mu am ñu fàtte waaye ñu xam ne yéeneem moo doon képp ko wax laal na ci bis bi ci lu jege wala lu sori mu yëkkati kàddoom la boppam ba nga yëg ne na taxawaay bi ñu ci taxaw yëg na itam jëf jërë ji nga xamante ni def nga ko ñebe la ak ñu ngi nii bu baax di la sant di la wax asalaamaaleykum. salaam wa rahmatullah sëñ Mouhamadul Amin. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alif laam miim allahu huwa xayyul xayyum fa aslix lisaani kulluhu wala takilni ila nafsi tarfatal ayni mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokki àdduna ñu ngi fii ci almouridia tv ak almouridia fm fas yéene ñëw ci liggéey bi nga xam ni moom lañ fas yéene def te ci muy ci ndigalu cheikh mahamadul muntaxa yàlla na fi yàgg tànd ak wér ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit ci yonent bi ñaanal ko mu yàgg fi tànd ak wér moom cheikh mahamadul muntaxa di ñaanal rakkam ju baax ji sëriñ sidi mbàkke moom cheikh abdul ahad waaye di ñaana bu baax sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Mbenda mii xalifatul usratil Baye Fall ya waaye di ñaanal bu baax sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne mooy jooruñu kuréelu Hizbut Tarqiyyah ak mboolem waa Hizbut Tarqiyyah gépp ñu ñëw fii ci ndigalu Yaasoodu Xumma ci turam ñëw fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bi nga xam ne moom lañ jógee bërki démb muy le 21 septembre bi nga xam ni ci la sëriñ tubaay jëloon deram bi sànni ko ci biir géej gi bés boobu nga xam ne kenn du ko fàtte fàtte ba yomal xiyaam ñu di ko fàttaliku bi nga xamante ni jàll na nag mu yebal ñu fii ngir ñu mën a sant ak gërëm mboolem koo xamante ni jàpp nga wala nga xalaat nga wala jëf nga ci bis bi te def ko ci ndigalu sëriñ Mountakha ñu fas yéene ko def dont duñ matal ñëpp sax waaye ñu lim tànn ci ñenn ñi nga xam ni dafa munta ñàkk ñu yóbbaale ñu ci des sëriñ la sëñ Abdoulaye ñu sant bu baax ci diggu am solo woowu mu mel ni kon lépp dañ koy tàmbalee rek ci Cheikh Mouhamadou Mountakha moom mi nga xam ne moo joxe ndigal li te xam diggam soxna si waaye digg mag julli gi nga xam ne mooy julli géej gi ndax bañ ko dalee ci 1995 bisul tey moom ñoom koy ànd ba suñu borom dogal tey mu toog fii mu toog jiite jamono Serigne Touba jërëjëf Serigne Lamine Cheikh Mamadul Muntaxa dafa am tawféex tawféex gi mu am mooy maamam dafa bind ne wahab lana zuriyatan tuddiimu alhamala saalihatan yaa xadim del waxaat ne wa zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal teg tajtahidu yàlla maa ngi lay ñaan man sëriñ Touba nag ma may ay sët yoo xam ni dañuy taxawal fu ñu toll diine lislaam kon ñooñee Cheikh mu taxaa ku ne xam ne ca la bokk yàlla dogal baayam yi mu jamonoon tël yépp kenn ku nekk jox nga ko cëru doom waaye dañ koy xoolee bëtub Serigne Touba loolu nag ak taalibeem ak xam-xamam ak yaram ak tegginam ak bëggam sëriñ tubaa ak moom Pastef moo ko may ba yàlla dogal bi ñu demee ba 1995 ñuy fas yéene dajaloo benn mbooloo moo xam ni kuréel la ñu dajaloo ko ñoo ne dañoo fas yéene tàmbali fàttaliku bés bi nga xam ne moom la Serigne Touba julli woon ci biir géej gi ñu ne nag dañuy ñëw ci Serigne Salih Mbacke bi nga xam te ne dugg na ci noppam soxna may mënatu Mbacke bint Xaadim Rasoul moo njëkk a wax ni ah loolu de lu rafet la te ànd naa ci Cheikh Abdoul Xaadir ànd ci waaye Serigne Saliou Mbacke suñ borom dogal bi nga xamante ne noonu moom yëkkati kàddoom ah, ne soxna may boobu fekk na sax Seex Abdul Xaadir Mbàkke bàyyi ko fi ci zahir waaye soxna may Munatu Mbàkke dafa wax ni day fàttaliku neen dafa am benn bis mu toog ak sëñ Abdul Xaadir bi mu toog ak sëñ Abdul Xaadir mu ne man de may Munatu dafa am lu ma jaaxal murit yi niñ mënee màggal ak nañuy fàttaliku ba léegi kenn koo xam ne jug nga di fàttaliku julli gi Sëriñ Tuubaa julloon ci biir géej gi loolu daal man ni mu xoromoo jaaxal na ma nii soxna may bi yaa soda ñëwee ak mbooloo mi soxna may bintu xaadim rasul wax ko yaa soda nga xam ne bon doomi sëñ tubaa lu mu xalaat yàlla def na ko ndax moo ko wax moo ne suñ borom nag ma may sama doom yi képp ko sama doom yépp nañ xam di xamale yaru di yare àgg ci yàlla tey àggale loolu sëriñ tubaa la ko yàlla may te defal na ko bi nga xamante ne loolu am na ñu ñëw wax ko Seex Saalix Mbàkke yàlla na fi yàgg yàlla na yàlla yokk leeram taas ci barkeem jàmbaar ja mu joxe ci ndigal bi mu ci joxee ndigal ñu def ko ci at moomu ba ca déwén sa ñu ñëw di ko sant mu ne ah comme def ngeen ko mu jàll damaa bëgg ngeen forme kuréel tuddee ko fàttali ko julli géej gi bi ñu ko waxee loolu soxna may daal ne ah bon soxna sooda xaw ma ku mën a jiite waaye maay jiitu man soxna may soxna sooda topp sama ginnaaw kon ba xam ne kuréelu géej géej gi laata kenn di ko jiite soxna may moo njëkk wax ci làmmañam ne man may mënatu maa koy jiite soxna sooda topp sama ginnaaw kon naka njëkk jigéen ko njëkk jiite waaye ñi nga xamante ne ñoo fi jaar muy Baye Baba Gueye Baye Nazir ture ah Baye Aline Badara Cissé ñi ci génn àdduna yàlla na yàlla yokk seen taas seen barke ñi fi nekk yàlla bàyyi ba ci alxaaji mbàkk yu fay maxtar Diouf ñoom ñëpp ñi fi nekk ñu yàgg fi ba yàlla dogal liggéey boobu sëriñ mënu ko teg ko ci loxol soxna Soodu Xuma sëriñ Muntaxa nag di jëmm joo xam ni kenn dootul fàtte benn mbiram wala benn jëfam ci yoonu murit ndax daa sagal sëriñ Tuubaa doy na sëkk ci mandarga yi nga xamante ni maamam Cheikhul Khadim bind na ko wax ni yow suñu borom maa ngi lay ñaan Mouhamadul Muntaxa mii bés bu man sës bu man Ahmadul Khadim bés dina ñëw ma soppi sama jëmm doon Muntaxa dagg njëngi jéngi lislaam yi lil Muntaxa wajjahtu fii ndakaaru zikran bihi xat ko kibal makar nga xam ne loole suñ borom xaas gi sëriñ mun Muntaxa am moom la ko yàlla jagleel loolu nag dara warulu ko ludul ragal yàlla gim ragal yàlla ak bëgg gim bëgg sëriñ Tuubaa te alxuraan it sëriñ Lamine moo ñu wax ni wa man yattaqillaha yajhala lahu maxrajan wa yarzuqhu min aysu la yatasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa asbahu inna allaha baaliqun amrahu xad jaala allahu li kulli shay'in xadran ku ragal yàlla loo dugg rek yàlla defal la ci ndam sëriñ Muntaxa nag ndam googu la am mu suñ borom deel waxaat ni wa man yattaqillaha yukaafiru anhu sayyaatihi kon sëriñ Muntaxa dundam gépp da ko sànq ci bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg sëriñ Tuubaa waaye seeyal boppam ci moo tax mu ne ba ma waree jàngi man Muntaxa damaa jàngi ba am xam-xam waaye dem jàngi sëriñ tubaa ba am ci tawféex. waaw loolu yaakaar naa ko ku ay jotaayam dégg ay kàddoom dina ci dégg lu am solo nga tudd euh, lu am solo muy sëñ Abdul Xaadir ku ne gis taxawaayam ak soxna may mun a ci li nga xam ne mooy sababus bi tey ñu am tawféex Serigne Fallou Mbacke moom Cheikh Abdul Xaadir di taxawee julli googu di koo xam ni. gis nañ ne lu bokkul ak julli gi dénkaane yi am solo yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci bis bi di koo xam ne itam ku ku mat a sant waaw Cheikh Mamadou Lamine noonu rek la demee ndax Cheikh Mamadou taxaa bi Serigne Saliou joxee ndigal dafa jël Serigne Muntaxa ne ko boole naa la ak waa kuréel gi kuréel julli géej gi Serigne Mourtada doomi Serigne Touba jiite na ko mun taxaa jiite na ko Abdoul Hakim jiite na ko ba yàlla dogal mu tabbi ci loxoy Cheikh Mamadou Fadal ay ati at mu di ko jiite ñu di ko ànd ak moom yàlla nañ ko yàgg ànd ak moom euh, Cheikh Mamadou faadal dafa donn baayam Serigne Abdoul Khadir Serigne Abdoul Khadir day dëggi dëgg Serigne tubaa ndax ku ne xam na ni ñim jamonoonte ci doomi Serigne Touba yi ñoom ñëpp ko wekk ñoom ñëpp ko jox wàccuwaay doy na sëkk ci Cheikh nga xam ni moom la jamono diiru xilaaf ak Cheikh Abdoulaat Serigne Abdoulaat doyloo ci diine doyloo ko ci xam-xam doyloo ko ci lépp loo xamante ne mooy ahkaamu sharia yi nga xamante ni mooy dox ci mba lu jëm ci wàllu lislaam wax naa la bayit bi léegi Sëriñ Tuubaa moo ne naha laya wal awlaad yi bil xilmi wal amali wal irshaad yi yàlla may na man Sëriñ Tuubaa sama doom ju ne day xam ne yaru du yare àgg ci yàlla tey àggale Cheikh Abdoul Xaadir daa àgg ci yàlla tey àggale moo tax doomam ju te ji di Cheikh Modou Fadal ku ko gis sa xel dem ci jàmbaar ji muy Cheikh Abdoul Khadr Mbacké sëriñ Fallou yàlla na fi yàgg tànd ak wér bu waxtu julli jotee bu naan bërit mhm. sa xel day dem ci sëriñ Abdoul Khadr waaye sa xel di day dem ci sëriñ Touba bu dee jàng nga dara sëriñ Touba wala ngay yëg sëriñ Touba mhm. ak ni nga xamante noonu ngay noonu lay mel ak sàpp si boo ci taxawee wala ngay dégg bu ne allahu akbar sa xel day dal mu leer na ne yow retu sëriñ tubaa moo lay jiitee mhm. waaye ki lay jiite it comme yar la teggin la te ko am xam la te fonk fonk sunna la loolee nag da koo jëlee ci maamam maamam Serigne Touba moo wax ni ujaddidul shariatul mutahara inchaa wal aqiqatul munawara maa yeesal shari bi te yeesal aq bi bu soobee suñ borom Cheikh Madal Fadal mu jot mu ñëw duñu ñu jiite julli gi taxaw ci sëñ lamin taxawaay bu rafet bu mucc ayib bu mucc ayib boole gi sax bi nga xam def jiite na ba noppi waxtaan bi nga xamante ne moom la baaxoo def muy waxtaanu soññe bu am solo boo xamante ni ren itam am na lu am solo ci dolli ko mooy leeral na taxawaay jigéen ci lislaam tudd ay jigéen ñu tedd ñoo xamante ni dala ci soxna Mariama soxna Asiya soxna Aïcha soxna Fatima kenn ku ci ne mu wane seen taxawaay ba ci soxna Aswaalo soxna Mariama Bousso lépp rek ngir leeral euh, jëf ji nga xam ne Cheikh lu mun ndax def na ko tànn soxna sooru ji bis bi ñu se euh, nemme ko itam euh, sëñ Abdoulaye ci bis ba teewaayu sëriñ Cheikh Basir ibnu sëriñ Abdoul Xaadar jàmbaar muy koo xamante ni moo yor kàddu Cheikh Mouhamadou Mountakha yor kàddu yoonu murit mu mel ni teewaayam képp mënoon na baale ndax bari nañu fa teew ci njabootu Serigne teew ci wetam teew ci wetu Serigne Fall Cheikh Mamadou Lamine jërëjëf Cheikh Mamadou Lamine Bachir ibnu Serigne Abdoul Khadir day jàmbaar di boroom xam-xam di ko yaru di ko yiw di ko am personnalité yàlla dogal mu yor kàddu gi yoonu murit bi sëriñ Bassirou Abdoul Khadir boo ko fréquenté tuuti rek danga koy ñeewantal danga nga koy yërëm amul jot amul temps ndax lan dundam gépp amul vie de famille dundam gépp da koo jox Serigne tubaa waaye loolu mooy dëgg-dëgg vie de famille kon moom dafa xam ni liggéeyal Serigne Touba yemut ak dara xam na lu tombeeg bayitam bi maamam di wax ni inna lazina saaro li xidmati walawum di yaaroo wasen na lu xam na loolu Serigne Bassirou mu Serigne Abdou Khadir murid yëpp boo xam njukkal lu tax mooy ci xam-xamam ak ni mu nekkee sagu yoon wi ak melokaanam ak comportement am ak civilisation am ak xam mu ràññee taxam àdduna yàlla dogal mu teew fa at mu jot noon la koy defee day ñëw ànd ak ñun ci julli gi teew fa waaye bu ñëwee li muy njëkk def xoola ren li mu def ñëw na fekk na julli gi jàll daanaka waaye bi muy dugg si dafa summi mbaxanaam nuyu sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Fall moom sëriñ Abdul Xaadir loola nag day firndeel wax ja yàlla waxoon digganteem ak rasulullahi alayhi salatu wasalaam ak saaba ya yaa ayyuhal lazina amanu laa tarfahu aswaatakum nabi yéen ñi ma ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon yoonu murit kon mooy wa jal saxiira naa yu waxirul kabir wa jal kabira naa yu aynu li saxiir sëriñ Basiru Abdul Xaadir mënoon na ni maay porte parole yoonu murit maa yor kàddug yoonu murit waaye bi mu gisee sëriñ Fallou daa dindi mbaxanaam nuyu ko toog ci wet sëñ kosom mi nga xamante ne moo na nag sëriñ Abdul Xaadir daa jug fi mu toog moom sax Mouhamadou Mountakha may ko toog ndax baayam la am la yor waaye sëñ Basiru lu mu wax mooy amatuma fi kaddu amatuma fi wax sëriñ Fallou toog na sama wet sëriñ Muntaxa yebal na ko mag moom ñun ñu fi nekk ñëpp moo ñu boole yilif sëriñ Muntaxa yilif samay kàddu dugal naa ko ci biir kaddu yi Cheikh dal Fadal moom sëriñ Abdoul Khadir noonu la doxee dëgg la ñu gis tam ñeneen ñoo xamante ni euh, ci njabootu sëriñ Tuubaa bi teew nañ fa ñëw jotaay bi am ci ñoo gis na ni ca tàmbal lañ ko am ànd ak soxna si euh, am na ci ñoo xam ne mënuñu teewal na leen ba ci sax ñoo xamante ni teewal nañu ak seen jëmmi bopp ñooñu itam ñëpp it soxna si di leen jottali cant bu wér ci taxawaay bu rafet bi nga xamante ni taxaw sëñ Lamine ñi ñu ci teewaay bi àdduna sépp a teew waaye dañu am ñu ñuy jukki rek yoonu murit moo baaxoo boo tuddee ñenn rek yóbbaale nga ñi ci des ngi noonu ngay seen moom duxaa bàyyi mu teew fa moom it waaye it sëriñ lu Mbàkke ñu gën koo xam sëriñ Galas Kaltoom moom Cheikh Mamadou Lamine Baara moom Cheikh Mamadou Fadal ñu gën ko faa xam moom it teew na fa waaye teew na fi sëñ Aline Mbakke waaye ñoom sëriñ Abdul Karim Mbakke ibnu Cheikh Madal Fadal makaarimul axlaax moo leen fa yabal ndax ku ne xam ne sëriñ Abdul Karim diggam ak soxna Sodu Xuma waaye it mooy am na bis bi nga xamante ne liggéey na restauration bi nga xamante ni moo nekk ci université bi keroog bi mu noppee yàlla daa dogal man la yabal maa ñëw ba ci sëriñ Muntaxa mën na ko sëriñ bi Mbàkke baala mun ma di ko nuyu mu wax sëñ Ahmadul yi ni ma agsi nga ma ne ko waaw mun ma nekkal ci buntu gannaaw wax naa ko sëñ Muntaxa dama ne ko soxna Soda yebal na sëñ Abdoulaat Samb mhm. agsi na mu ne ma ne ma sëñ Abdoulaat xaar ci buntu gannaaw bi ma xaar sëriñ Muntaxa ci buntu gannaaw bi mu ñëw fekk ma fa ñëw ba tolloog man wàcce vitre otom bi ni wuyu ma ni ma Samb ma ne ko Mbàkke ma ne ko soxna Soda dema nga fa nekk ci la nga ko santoon mhm. di la ñaana nga yàgg te ànd ak wér tey sàkku ñaan mhm. ma ne ko barab baa ngi nii nag moo ko liggéey ba noppi lépp def na ko addee sëñ Tuubaa waaye xam na ne sax ñaan moo tax mu mën ko mu ne moom de foofu mu nekk ñun la fi nekkal ñun ñii fi ñu nekkit moom la fa nekk moom lañ fi nekkal ndax xam nañ ni du nekk ci lu dul lu sëriñ Tuubaa gërëm kon soxna Soda noonu la demee waaye particulièrement it ñuy sant sëriñ Badawi moom Cheikh Madal Fadal borom mi nga xam ne moo yor raw daayira Rawdu Rayaahiin ku sonn ci soxna la keroog bi ñu defee loolu bi ñu añi sëñ Abdou Karim dafa woo li gën a doy waar mooy sëriñ taxa dafa yebal sëriñ Ahmadal Badawi ni ko demal ci sëriñ Abdul Karim Mbàkke mhm. nam ngir nga santal ma ko ngir mu sant cant gi ma am ak mbégte gi ma am ci sono sooduquma mhm. ngir ni mu doone ab taalibeem ba mu def ko mu mel nii ba mën a liggéeyal sëriñ Tuubaa mhm. loolu laa koy sante kon nga xam ne sëñ Abdou Karim moom sagoote na ci loola ndax am taali bu sono soda day ndam waaye sono sant na sëñ Abdou Karim ci mel ni mu ko melal ak ni mu ko def sëñ Amadou Badawi taxaw ci taxawaay bu rafet digganteem ak sono soda digganteem ak sëñ Abdou Karim digganteem ak sëriñ Muntaxa mu du ci mu du ci dox ak di ci jëf jëfin ñu rafet moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax waaye di sant bu baax sëriñ Sàmbake mi nga xam ne moom la ñuy àndal ci liggéey bi at mu jot waaye di sant bu baax su ma limee damay jum Cheikh Amadou Amin yoonu murid gi soxna may laat mum sëñ Abdou Karim mum Cheikh Madal Fadal soxna May Mbakke mum Serigne Cheikh Daar Rahman mum sëñ Abdoulahi Mbakke borom dër bi ñooñee ay doomi soxna soxna lañ waaye soxna Maam Faati Mbakke bintu Cheikh Madul Muntaxa ibnu Serigne Basiru ibnu Xaadim Rasul yàlla na fi yàgg tànda wér moom it ma nga fa ne nag ñeneen ñoo xam ni kenn ku nekk mënoon naa tudd turam mel ak soxna waaye ngir mel ak julli géej gi dëgg la fi nga solo yaakaar naa ci woote bi biñ koy def wax na ne yoonu murid bàyyiwul kenn mhm. di fàttali ne bis muy le vingt ñu ngi ko jageeloon maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. Serigne Saliou Fall teew ànd ak bokki Baye Fall yi ñoom Serigne dañu njëran def ay waxtaan am solo Serigne am bi mu Serigne Modou Mbend bi mu ko déggee noonu la rafetloo teewaay bu moom itam soxna si di ko jottali cant bu baax am Amdi Fall moom Serigne ànd ak wér yaa tàmbale jamono yal na yàlla sàmm njabootam gi Cheikh Modou Amin Tafal jàmbaar moo daan yebal say moom sëñ Modou Moustapha Fall rakam ju baax ñu mu daan di ñëw di fa teew sëriñ Cheikh jëmb bi mu ñëwee yàlla dogalit moom it muy yebal sëriñ Cheikh Assou Ndiaye muy jàmbaar di borom xam-xam moom di ko baax yàlla dogal ba sëriñ am di Modou Mbenda yàlla na fi yàgg te ànd ak wér bi mu ñëwee xat-xati màggal gi ak xew-xew yi it teewul yebal na mhm. Serigne Cheikh Assou Ndiaye xam ne Serigne Saliou Fall rakkam la mhm. te mbokkam la mhm. te ma nga foofu mu ne Serigne Saliou nekkal ma fa te nga ngir ndigalu Serigne bi moo ma yebal dañ naa la yebal nga ñëw teewal ma fa Serigne Fall moom it ak waay bu rafet noonu la yàgg ànd ak waaye noonu la yàgg ànd waa kuréelu jullu géej gi waa Jeng moom Cheikh Ibrahima Fall Jeng mi nga xam ni mbooy toggal mbo bi togg xew nekk ndax dafa bokk ci biir njabootu Cheikh Modou Abdoul Ndar nga xamante ni doon doomi sëriñ Abdou Fall bokk ci liggéey bi kon Baye Fall yi bés boobu seen bés le le vingt nga moom at mu jot lu ñu ko daan taxawee bay Mbaye waxtaan fa waxtaan bu am solo Saliou Fall ngoog Baye Mbaye ngi daan waxtaan fa waxtaan bu am solo waxtaan bu rafet galas xam-xam bu rafet la moom it waxtaan fa waxtaan bu raay kaddu si Youssef moom it am na solo loolu su Baye Fall ba ak bés bi nga xamante ni mooy bésub vingt muy lu am solo sëriñ Mbàkke yu fay nekkal sëriñ bi Ndakaaru te yaakaar naa Cheikh mu Mountakha bi muy joxe ndigal bi di wax ne soxna sooda jiital ci dafa ne lu kenn jiitul sëriñ Mbàkke mi nga xamante ni mooy baatu sëriñ bi te dobbee mhm. kon moom it gis nañu teewaayam joxe ndigal ci waa Masaalikul Jinaan ñu ñëw ànd ak soxna si bis bi dikkal na boppam jël fa kàddu sëñ Lamine jëkk yi fay day jàmbaar bi sëñ Touba te daraam du fekkee liggéey bi sëriñ Touba yàlla dogal ay waajum lépp ñëpp bokk ci yoon wi yoon wi màgg ci yoon bëgg sëriñ liggéey bi ko daan yor bi ko sëriñ Diouf mi nga xam ne moom nekk yeneen liggéey mu soppi jëmmam ji jël ko bañ Muntaxa sëriñ Muntaxa dénk ko mbàkk yi bi mu ko jëlee ci mbàkk yu nag jokko sono sodo alaaji mbàkk yu rafetal na lépp murit la te taaliba la teew fa waaye def fa discours bu am yar ak teggin moom it mii représentant murit ci Ndakaar ak li ko wër muy jàmbaar di ko bëgg sëñ Tuubaa moom it sono nee na mu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay ak ànd bi mu ànd ak moom ak yàgg ànd bi mu yàgg ànd ak moom ndax télévision mi dara desul organe de presse am yi dara desul ñoom ñëpp la yebal ñu ñëw ngir mën a couvrir bis bi ànd kook moom ngir jëmi Cheikh Modou tax jërëjëf euh, sëñ Abdou Lahad ñu gis ne nag euh, bis bu mel noonu am na ci ñu ci taxaw taxawaay yu mu solo ndax gis nañu bisub alxuraan la mhm. gis nañu daare kaamil yi ñu kuréel yi nga xamante ni jaxaraan lañu gis nañu ñi nga xamante ni tam ay waxtaankat lañu mhm. gis nañu tey jii euh, li am sëñ gas jasara ñoom ngiraan ak ñeneen ñi nga xam ne ñu teew nañ di fàttali murit yi mhm. taxaw bis bi loolu lépp ngir bëgg mu doon bis boo xam ne kon lu ñu koy def alxuraan xel dara dara war ñoo xam ne taxaw taxawaay boo xam ne na bi sooga jërëjëf Sëriñ lépp luñ koy defal alxuraan moo ci war a jiitu ndax suñ borom moo wa man arat an zikri fa inna loo ma wa nahshuru yawmal qiyaamati a'ma képp kuy dund ba doo jàng alxuraan doo tudd suñ borom kookee buy dekk silmaxa lay dekki wale wal iyaasu billah yàlla dogal sëriñ tubaa nag wax ni rafax na alqurana raf an xafada man zaahu jël naa al kenn musa teg alxuraan yëkkati ma teg ma fu mu dootul teg kenn ba képp ku may jéem a suufeel man sëriñ tubaa alxuraan déclaré na la gar rabixtu bil quraan rib an bi kuni li ahadi xayri wa bi kuni doon naa ci alxuraan doon lu kenn kenn dootu ko am te ko bëgg am ci alxuraan alxuraan mooy bañ kitaabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanju dunya wa ukhra min al karbi sëriñ Tuubaa dellu waxat naa jaaniyal munzilu bil qur'aan yi hatta xadawtu mawrada zaman la nag suñ borom ci biir alxamul xadim man la suñ borom def may maay ka moo tax alxuraan jooju moom lañ ko cislare moom lañ ko lay laytaayale ndax alxuraan ji dañ ko jàng ci sant ko yu bari daaray njaareem daaray Tuubaa yu mel ne sañ ko wër waaye suñ ñëwee ba ci bis ba dañuy def rafet def ko kese sëñ Dan Njaay jiite leen ànd ak ñoom mi nga xamante ne commission boobu ñoo njàng ci njàngum alo waaye it ñu gisaat ren mu am lu ci yees ndax Sëriñ Tuubaa day yeesal ndax moo ne lil nawmaayu jaddidu sunatoo xaraawe gannaaw mooy yeesal diine diine lislaam saa su ne bésam day gën a yees Hizbut Tarqiyyah ak sëñ Youssou Diop ànd ànd bu rafet ñëw defar bâche bu rafet équipé ko seen kuréelu xasaayit yi nga xam ni sëriñ Tuubaa ñun murit amuñu wax sëriñ Tuubaa yi nga xam ni moom lay taggee yàlla di ko taggee yonent bi dañu doy waar yi wax ci biir ni aqsamtu billahi li nabi abadan xillan wa hibban wa ma abahu faa xeeral war a xeradi fii kulli shay'in wa ma yabahu abahu man giñ ci sama suñu borom mi nga xam ne sama bakkan mu ci loxoom yonent bi rek laa bëgg lu mu bëgg moom la bëgg lu mu bañ moom laa bañ waaye ki gën ñëpp ci jubluwaay ci ci lépp mooy sama lu mu bañ moom la bañ kookee lu ma bañ moom la bañ xasaayit yooyu ngeen koy yëkkati Hizbut Tarqiyyah njàng mu njàng mu rafet njàng mu sell di Tuubaa yi ba ko fa nekk boo fa toogee sax xel day jàpp ni yow fi nga nekk tey yaa ngi kon loolee ñu ci sant sa akkuréel xasaayit meeg njàngum alxuraan bi ak ak yar bi ak teggin bi dëgg solo ndax ñu xam ne loolu Hizbut eh, Tarqiyyah da ko ànd ak daayira yi ne ci Ndakaaru moo xam ne nu ci Masaalikul Jinaan nekk Yoof ñu nekk parcelle ñu gis ne ñaar fukki fan yi sax lañ tàmbalee jàng ba ci ñaar fukki fan ak benn di ay kuréel yu fasantikoo yoo xam ne ci ay gox yu bari ci ndakaaru la ñu jóge loolu di wane ni ñoom euh, la sëñ bi waxoon ne euh, ne bis bi nañ ko di bisu ñoom ñoom jàpp nañ ko te tàmbali nañ ko doxee ñuy séentu incha allah euh, bu ko suñu borom may jàmm ak fekkee édition yi dina mel ni taxawaay bi dina gën a ràññeeku Karim mi nga xam ne moom it lu ëpp ñaar fukki at muy fanaani bis ba di ko jàng itam lu ñuy xar-xar teew na nga xam ne moo ko fanaani jàng bu bët set mu mu mu mu mu mu julli su fajar mu mu mu ñaanalante ak soxna fi ak ñi nga xamante ni ñoo fa ñëwoon di ko teew muy tamit jëf ju rafet joo xam ne war na ni nañ bis bi euh, ci la bokk te itam lam ci jàppoon euh, ren jii la ko gën a jàpp ñu bari sax yaakaaroon ni guddee na ba du ñëw waaye yaakaar naa li teg fekk na ko fa te njàng mi incha allah la ko fanaanee ba ba ba bët set muy ñoo xamante ni tam ñu mat a euh, sant euh, bulaat ñu gis ne bis bi mbooloo def ciy daje gis nañu ci bis ba euh, njiitu réew mi président de la république yebal délégation boo xamante ni délégation bu takku la ñaari ministre nekk ci Abdou Karim Fofana jiite ko jël fa kàddoom dégg nañ ci délégation premier ministre te li ko jiitu amoon na ay ndaje yoo xam ne gouverneur ak préfet def nañ ko ba mel na ni li ñu itteewoon ci fànn yooyu taxaw nañ ci ñooñu itam di ñoo xam ne nag ñu mat sant lañu ci seen taxawaay yu am solo euh, gannaaw ndigal loo xam ne ministre de l'intérieur jox na ko gouverneur ak ñu amal fa ay ndaje yoo xam ne ngir saytu mbooloo jërëjëf ñu ngi sant bu baax la bu ci taxawaay bi taxaw ci dégg kàddu seen tay mu joxe ay active ci mboole bi ci njëkk mooy ministre de l'intérieur mi nga xam ne taalibib Serigne Touba la yàlla dogal bâche dañ moo ko fa def toog ak gouverneur ministère mi nga xam ne commandant muy sapeur pompier muy gendarmerie fu ñu teew fa service d'hygiène ñëw teew fa teew waaye commandant gendarmerie lam leen fas yi li nga xam ni ñuul ak melokaanu yoonu murit ñu bañ ko faafe fee boo xamante ni lée bu doy waar waaye it de la république dafa fexe ba jël deux hectares attribué ko kuréelu julli géej gi ngir jëm Sëñ Tuubaa loolu war nañ ko ci sant di ko ci gërëm ay ministre am d'état Mbay Njaay mi nga xam ni ci kuréel gi la bokk sëñ Mbay Njaay di ko yaru di ko bëgg sëñ Touba di taalib sëñ Touba mu yebal ko fa at mu jot nag noonu ànd ak ñun ñëw na le 20 ñëw le 21 te réunion yi day ñëw tey day joxe ay barkeloom waaye moo yebal fa it ministre Abdou Karim Fofana mi nga xam ne taalib sëñ Moustapha Moussa Abdou Khadir ku dégg discours nga xam ni ku bëgg sëriñ Touba waaw ndax bi ñuy da ngay jihaat waa inni ujaahidu bil ulama wax na ko Sëriñ Tuubaa dëgg la nen ne nañ damay jihaat waaye maa ngi jihaat ci xam-xam ak ragal yàlla ndax loolu leen mooy mooy njariñ bi am tey te mooy njariñ bi am ëllëg sëñ Abdou Karim Fofana ministre d'État ñu koy sant di ko gërëm sant mboom ñi nga xamante ne muy maire parcelle ak Yoff na ñoom ñaar ñoo ko pare ñëpp ñu ñu baax ñu yaru nañ ko daan ànd ak yi fi jaar Moussa Sy ak ki nga xamante ni mooy kii kii Diouf nu mu tuddati Abdoulaye Diouf Sarr mhm. ñoom nañ ko daan doxalee mhm. ñoom ñi fi ñëw rek noonu lañ ko doxalee ndax ñoom sax ci bis teew nañ fa te Aboubacar Diagne Sané ñi nga xamante ni mooy meeru parcelle jël na fa kàddu mu ngi noonu mhm. moo tax seen rek lañ leen jox bés bu subaa la du bésu politique du bésu leneen Serigne Touba tax ñu di ko ndax bi mu koy def yàlla yonent bi waaye képp kuy sénégalais am nga ci part de responsabilité waaye ñoom xam nañ ko te def nañ ko kon nag soxna soo nee na mu ngi sant république waaye di sant mbooleen membre gouvernement am yépp ndax ndigal yi mu leen jox def nañ ko nu mu ko bëggee ba defee ko nu kawee jortam ci barkeb sëriñ Muntaxa te sëriñ Muntaxa rek tax dëgg la euh, sëñ Abdoulaye mu mel ni nag am na ñoo xam ne euh, luñ leen jottali cant bu doy muy daayira yi ci seen taxawaay seen diggante soxna si ndax wàññi gis nga ni mu demee bernde yi gis nga ko waa café gi ñi ko yoroon ñi yoroon wàllu organisation mu mel ni kon daayira yi yëpp kon takku nañu nañ daan def li màggas yi xat-xat teel nañoo ñëw nekk ci liggéey bi ànd ak soxna si jàppale ko bu bis suñu néew mel moom itam soxna soxna mu jàppale cant bu baax a baax sëñu su jërëjëf daayira ak cant giñ ci njëkk a def mooy cantuk daayira daara isbu tarxiya kilifteefu sëriñ ñu Jóob ak mboolem membre isbu tarxiya yëpp te gi nag li taxoon sëriñ Muntaxaa def ko sëriñ taxaa moo xam li xew ndax kilif boo yaa Daawda innaa ja'alnaaka xaliifatan Daawda maa la def ngir ma représentant sur terre ngir atti doomu aadama yi ci dëgg sëriñ mu bu nee soxna soxna boole naa la ak isbu tarxiya boole gi mu booleeg soxna soxna isbu tarxiya isbu tarxiya taxaw nañ ci taxawaay bu rafet yaa soda nee na mu ngi sant isbu tarxiya cant goo xam ne tàmbalee te amul fu mu yem ndax ci njëlbeen du di ak lépp isbu tarxiya da ko ànd ak yaa soda na gis sañ yuus ci wet gi ndax lépp ñoo ko àndee sañ lamin waaye fu ñu tunee gis sañ yuus da ngay dem ba da nga koy ñeewantal waaye mu xam ne moom jàmbaar la joo xam ni li sëriñ aatu def ci moom ñu ànd ko muy taalib ak mur sadex loolu rek la moom lay tari moom la ànd ak isbu tarxiya kon mu sant waa isbu tarxiya ci njiitalu sëriñ Yuusu Jóob tey ñaanal sëriñ aatu jaan jàmbaar ja yal na yàlla yokk leeram taas ci barkeem ak mboolem te parcelles yi daayira Dakar yi ñu jóge Touba Ndar ci région yi ak daayira yi nga xam ñoo fa nekk di liggéey liggéey bi di jàpp ci liggéey bi kafe gi ëxlu kafe waa waañ di sant nag soxna Nafisatu Diop mi nga xamante ni mooy boolem lu jëm ci ak restauration muy soxna sëñ Pape Ouma di jàmbaar di ku baax di ku sell jëf noppi ànd ak soxna Sodu Xuma taxaw ko taxawaay bu rafet moo tax soxna Nafissatou Diop ñu ngi sant bu baax te di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te ànd ak wér sëñ Lamine soxna soor nee na bàyyi ak benn daayir ñi jàng alxuraan ak jàng xas de organisation ñi nga xamante ni ñoo ci atrib jëf ngir sëñ Touba ñi nga xamante ni ñoo ñëw jàpp ci bis bi ñiy segg café ñiy andi ndox mi ñi ak ñëpp nee na mu ngi leen di bàyyi ak Serigne Mountakha mi nga xam ni moo ko jox ndigal ngir mu ànd ak murid yi Serigne Mountakha faj seen waaw jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye muy ñoo xamante ni nga ko waxee rek euh, so ñëpp waaye euh, am na ci ñoo xam ne foo ñu jukki leen xel dina ci def muy ñoo féete bitim réew muy daal wa gisoon nañ seen yéene ak seen jëf ñoom itam ni bis bi demee euh, li màggal gi xat xat xat fàgguwaale nañ ko kon ñoom itam soxna so di jotti li di xamle itam ne seen seen ak seen ci moom sëñ Lamine jërëjëf mm-hmm. waa am na ñoom fa la nekk mais dañuy joxe chaque fin du mois ñu joxe la seen hidaaya lu munti toll di bàyyi xel ñii ñëw màggal si fekk yaa sooda nee na mu ngi leen di sant ak ñi nga xam dañoo nekk bitim réew te bëgg nekk seen xol te liggéeyal Serigne Touba nekk seen xol nekk seen xol dañu xam bayit wala ñu bayit bi Serigne bi wax ni amantahu min shaqa xillan wa xibban lay laa yadxulu naara am naa al amaana ni man sëriñ tubaab yàlla defal na ma xool bu ma bëgg wala nga sopp ma sa yaram lépp araamal na sawal kon ne na bitim réew ànd ak ñoom di leen ndokkale ci bis bi dañ sant di leen gërëm ci taxaw ak ak jàppale ak ki ànd ak moom ci bis bi di leen ñaanal te bàyyeeg sëriñ Muntaxa mi nga xam ni moo ko teg ci kanam kuréel gi mu faj na ajo ci barke borom Tuubaa mm-hmm. am na nag mat nañoo jotali cant bu baax muy euh, taskatu xabaar yi ak kër yaatalukaay yi ak site internet yi ak télévision day mel ni ñoom it am nañu taxawaay ren bu ràññee boo am nañ ko ci bis bi ba mu àgg ci foofu lépp rek di wane ak sëñ Lamine jërëjëf wàllu presse yëpp ñu ngi leen di sant waaye di ci jiital nag télévision bii di Almouridiyyah TV man damay dem ba sax yow dama la doon yërëm barke sëñ Tuubaa ndax taxawaay fañ na la aywa ngeen aywa dara warul loolu Serigne Touba waaye it sant mu Addiya FM nga ànd na ko ñun kon it dama tudd tur muy télévision yi nga xamante ni dem nañ fa def fa émission en direct ak télévision yi nga xamante ni ñu ak site internet yi ak li xamante ni mooy bi ñëpp yaa solo ne ne mu ngi leen di sant di leen gërëm xam ne léegi may bay yaatu ba àgg fimu mu àgg communication moo tax moo ko àggale fi mu àgg kon ne ren ni communication bi doxee mus ko ni doxe loolu nag yaatal ak yokk moo ko waral de presse yëpp bàyyul benn yëpp si yaa sore ne na mu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal kenn ku nekk li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko Sëriñ Tuubaa defal ci barkeb Cheikh Mouhamadoul Mountakha jërëjëf fu ñu blaat ñi ñi mujjee nag mooy ñoo xam ne xëy na euh, ku leen santoon sax dinañ laaj lu tax ndax ñoom ñoo xewle ñoo woote muy waa kuréel liggéey waaye nag jàmbaar ñi noonu yoo xam ne seetaanuñu soxna si benn yoon kenn ku ci ne commission ba nga nekk di ci liggéey moo xam secrétariat général la moo xam wàllu relation publique la moo xam euh, wallu restauration la moo xam wàllu sécurité ba ci organisation kenn ku ne ci ñoom bis bi jàpp nga ni sa sa bis la def nga ci taxawaayu rafet ñoo ñooñu tam soxna si donte xam na ni mook ñoom bokk bis bi waaye mu ngi leen di feddali ak cantam ci taxawaayu rafet yi nga xam ne taxaw nañu ko ci wetam te xam ne seetaan nañu ko benn yoon bi max Sëriñ yàlla daa dogal ren sëriñ Muntaxa jël liggéey bi teg ko ci sunu waajuri sono soda bi mu ko fa tegee nag kon sëñ bi daa yeesalaat yaa soda wéyee ndigalu sëriñ bi rek yeesalaat kuréel am na poste de responsabilité yu ci bari ñi ko yor ren lañ ko mos a yor waaye def nañ ci loo xam ne ñi fi jaaroon ñaar fekkat musuñu ko cee def loolu nag day wane ni sëriñ Tuubaa ne day gàtt sama dem ñu ciy njëkk sant yaa soda xuma mi nga xamante ni mooy présidente bi waaye di sant vice ba Babacar Xuma di jàmbaar di borom xam-xam ndax moom mbooleem borom xam-xam yi nekk ci yoonu murit dañuy bind wàllu nasaraan ak yenn lang moom la def muy seen jiit yàlla mooy vice président bi muy ku jàmbaar di borom xam-xam bu rafet ku sonn ci liggéey bi moom it moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant secretaire général Nata Ndiaye muy jàmbaar di jigéen ci sayir waaye di ko bëgg Sëriñ Tuubaa di ko bëgg yaa soda di ko bëgg liggéey bi ku sonn ci liggéey bi dama koy xool ba mu yàgg sax sama yaram day daw dama koy yërëm ndax melokaanam comportement ak ni mu sayëf yi ku jaaxal ko ngir xam ne jiital te ki ko jiital bëggul dara lépp dam lépp baax ngir jëmmi sëriñ Muntaxa soxna Aminata Njaay ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal waaye de sant baax Pape Abdoulaye Xuma muy jàmbaar moom it di ko baax di ko sonn ci kuréel gi bunt buñ nar a xool rek moom moo koy mooy dox relation boobu moo koy liggéey moo koy lijjanti ba mu waaye mu doon ab taali bi ak yaram ak tegginam ànd ak ñun doxalin doxalin wu rafet waaye di sant bu baax ñi nga xamante ni mooy kuréelu xisbu tarqiyat du ma fàtte di ko wax wax waxaat du bari wax faatiyatul kitab doo julli benn julli te doo ko ci dugal te moom ngay njëkkee mun taxaa bi mu jëlee xisbu tarqiya woo sañu su jóg ñu ñi mu àndal ni leen boole naa leen soro ngeen ànd ak moom ci liggéey noonu rek lañ ko def sëñ Yuusu ñu ngi koy sant murit sëñ Tuubaa yëpp dëgg nañ ci moom ci yaram ci tegginam ci xam-xamam ak discours bu rafet bii mu def teg ci xam-xam waaye teg ko ci pas-pas ak kennal gi mu kennal Serigne Touba noonu la ko ànd ak Hizbut Tarqiyyah yaa soro ne mu ngi leen di gërëm ndax biir kuréel gi lañ bokk ñoo àndee it yaa soro nee na koy sant waaye di sant bu baax nag jàmbaat muy sonatu Kebe moom alhaaji Juga Kebe jëf na ci bis bi yaa soro nee na mu ngi koy sant di ko gërëm ba yóbbu nañ ko ay xéwalam moom it waaye sëñ lamin yaa sooda bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn yaa sooda ñu wax ñëpp ñu tudd leen buñ leen doon tudd ci émission bi sax du ci xaj ndax cofeelam ak xolam bu sedd ak mbégteem ndax moom benn bànneex rek la am muy bànneexub liggéeyal Sëriñ Tuubaa amu ci xëj amu ci seen moom da am démb mi nga xam ne moo ko def nii mu mel tarbiye ko tarxiye ko ko ba yoonu murid gépp mën a mu ngi sant bu baax Cheikh Abdou Karim Mbacké borom makarimal axlaaq mu fa yebal melokaanam muy sëriñ Galas Kaltoom ak sëriñ Ali Mbacké ak doomam ji soxna Maymunta mbakke bintu sëriñ Abdou Karim sëñ la ne jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye ñu lay sant na bu baax euh, xam naa ni soo xam mu tànn la wane ko ndax wax dëgg yàlla cant yi jotal na di dalay ci Cheikh mi nga xam ne mhm. mooy borom liggéey bi joxe woon ndigal li jaar ci kilifa yu yi nga xamante ni ñoom la yabal mhm. sëriñ Fàllu moom sëriñ Abdul Xaadir ci taxawat ak ci soññeem sëriñ Sëriñ Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Xaadir mhm. nga xam ne bu ñu ko tuddee tudd nañu mboolem njabootu sëriñ Tuubaa njabootu Maam Cheikh Ibrahima Fall ci bis ñu leen jagleel te mën a yóbbaale mboolem seexi murid yëpp sëriñ Alaaji Mbàkke yu fay mi nga xam ne moo nekk Mbàkke ci ci ci Ndakaaru ak itam auté yi dala ci délégation yi président yabal ak ministre de te maire yi nga xam ne ñoom séq julli géej gi mu Marcel ak Yoof ak jànkat alxuraan yi jànkat xasida yi daayira yi ñuy togg ñu féré ci organisation bi ak ñi tey julli géej gi ci seen bopp ak nag jëwriñu daara isbitaal yi nga xam ni moom dafa jàpp ne ndigal ko Cheikh Mouhamadou Mountakha boo na ci ba tax na lépp lu ci def xeeb na ko lépp loo xam ne xawaay bu ñu war a taxaw jëmam rek moo ko bu dul loolu itam ku mu yebal mu ngi topp ci ginnaaw waxtu wane di seet xoolal liggéey bi ngir bëggoon bëggu suñ bi am kon nag ñuy dellu di sant ñooñu ñëpp tàmbalee ko Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne borom liggéey bi di sant di ko di ko jaajëfal di ko ndokkeel euh, ak mbégte murit ndax bis bi gëj ko def waaye bi ñu ko defaatee yëg nañ ci ak dolliku ak jëm kanam fànn yi di ko ñaanal suñu borom may ko ak te yàggal ko may ko kattan bàyyi ko fi lu yàgg mu yàgg jiite liggéey bi ba ni ko Amadou Muntaxa bëggee yaakaar ji mu am ak ko ak jikko yi mu gis ci moom ba tànn ko suñu borom may ko mu matale ko suñu bar kon yéen kàddu ngay daanale yaa fi njëkk bi xanaa di sant di gërëm rek di ñaan Cheikh Amadou mu yàgg fi ànd di ko ñaanal Serigne Amdi Fall di ñaanal Sabintu Fall moom Serigne Modou Blay Fall ndax ak la mu njabootu Serigne Modou Blay gépp sant bu baax di gërëm di ñaanal sëriñ Atou sëriñ Atou Diagne di liggéey liggéey bu rafet bi te mu ànd ak yéen sañ Lamine mm-hmm. yàlla na suñu borom gën koo sàmm gën koo taxaw ci barkeb Serigne Touba mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu soo koy jërëjëf mu doonoon Serigne Abdou Lahat Samb teewoon fi ci turu soxna Soda Xumma ngir rek feeñal yéeneen ginnaaw ndigal loo xam ne jot na ko soxna si ngir mën a jottali ay cant mu jullit yi ak mbokki taalibe yi kilifa yi daayira ak mboolem ñi nga xamante ni jàpp nañ ci bis bi nga xam ne moo la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha digaloon muy fàttali ko julli géej gi amoon ci ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak septembre ci jàmmalaay atum 2022 di ñaan suñu borom mu yóbbu ñu ci ay yu bari ñu defe ko ni ko Serigne Touba digle sàkku ci ñu ko ci di leen sant di leen gërëm di leen jox jox daje ba beneen yoon wasalaam ala wa barakaatu Mustafa